aw naka yaa muxiinu wa bika nasta'iinu barkeb Cheikhuna Ahmadul Xaddiim ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci yenenteem bi di sant Serigne Touba ñu ngi am mbégte ak xol bu sedd di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi ba yéeneem ci Serigne Touba mu àggale ko waaye ànd koog mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp ak mbooleem bunti këri Serigne Touba yi di nuyu Serigne Afe ilimaan ji nga xamante ni liggéey bii. moom la ko waa daayira daayira mu xaddamatul xidma àndali yëpp ak sunu soppe yi ci biir di sunuy sëriñ di sunuy xarit ñoom ñëpp bawuñu ci kenn dañuy bañ a tàbb ci ab lim di bàyyi kenn ndax ñoom ñëpp ci sunu xol ak sunu xel duñ ci jóg tey jii nag association communicateur yi ci tubaab waaye mooy géwél yi nga xam ne dañoo dëkk ak sëriñ Touba ca dëkk ci biir dëkk bi ca doon génn buum àndandoo di lëggeel sëriñ Touba ci biir dëkk bi moo xam ci liggéey bu sëriñ bi woote la waaye moo xam liggéey boo xam dafa nekk ci biir dëkk bi nekk ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo yaakaar sëñ tubaa dëkkeek sëriñ bi ñooñu nag ñoo ñëw ànd ak waa daayira mu xaddamatul ma ci liggéey bu tedd bu rëy bii nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal islaam waaye ñu ngi koy liggéeyal sëriñ Touba ndax sëriñ tubaa moom bam ne simaamul wara asri radallaayi fii yadi wamaarumtoo min maalikil xaade bil an yi la moomoon mbindeef yëpp kon moo war a reeral ñëpp añal ñëpp ndogul ñëpp donte noonu la amee ca kaw suuf gi nag ngeen ci def loo xam ne ni ñëpp ci tëg bët tëg bët gi mooy ndogu lii ngeen xam ni at mu jot da ngeen di dajale millions yu baree baree bari taalibe yi kenn ku nekk di ci jëf jëf yoo xam ne nii ñu ngi koy biral am na ci yoo xam ne nii lañuy jëf bëggunu kenn xam ko yéen ngeen koy taxawe taxawe taxawaay boo xamante ni rafet na sedd na sunub xol rëy na ci ñun ca ñun ñii nga xam ne ñooy géwali Serigne Touba amuñu lu ëpp lu ëpp sëriñ Touba amuñu lu gën sëriñ Touba suñ ko amoon it soxlawuñu ko ki ñëpp bëgg a dëkkalit ñun moom la ñu am sens dëkk ak moom kon bu ngeen dee def liggéey bu rëy bi ñu dëkk ci biir dëkk bi ñu gis ko mu rafet sedd suñu xol moo tax ñu sàkku woon waxtaan ak njiit yi nga xam ne ni ñoo ci nekk kenn ci sëriñ Abdou Lahad Bousso ne ko kat daayira bi kat thème yi nga xam ne dañ ci waxtaan gisoon nañ ci loo xam ne sunu xalaat rek joxante ko ñu wecconte ko ci sunu biir ñoom it ñu wax ñu lay seen xalaat ni bis sangam di fukki fan ak juróom-ñaar ci koor gi tombeek le huit danoo bëgg yéen communicateurs yi mbootaay googu nga xam ne ni ñoo nekk ci biir dëkk bi ci njiitul président moodu mbay Ndiaye ngeen àndandoo def benn délégation ñëw ndogoose ak ñun waaye dikk wettali kook ñun ci waxtaan wi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ci jumaa ji loola nag ci njiitul président Modou Mbaye Ndiaye nee na xolam sedd na. neenaat yaakaaram dolleku na ndax liggéey bu rëy bii nga xam ne dañ koo jël boole ñu ci loola moom na ngeen am yaqin ni bis bu yàlla sàkk ñu ngi ci seen kanam ñu ngi ci seen ginnaaw moom mii rek barki démb wax naa ko sëñ Abdou Lahad barki dem bi ndikkee dikkee ci sunu conférence bi ñu doon woote da def ay ndoge ay ndogu di ko jox julli di waaye géer ñi nga xam ne moom lañu dëkkal ci biir dëkk bi dafa am xalaat bu rafet bu ma am ne ko ñun kër ginnaaw sëñ baa la ñu am nanu fexe ba am nu ñuy def di lëggeel sëriñ bi ci ndogu yi ba ma ko waxee xalaat ba ci saase laata sama kàddu daanu lani ma rafet na loolu ànd naa la ànd naa ceeg yow dinañ fexe ba wax ko loolu nag boo gisee ñii taxaw ci mbooloo mi sax jotaguñ ci waaye damay profité ko profité rek ci micro bii ma gàddu ni mboolem ñun communicateurs yi nga gis ñu taxaw ak ñu ñëwut ndax ñii taxaw ci sama loxol ndijoor du mbay Ndiaye moo nekk nii kii mooy Abdou Baaxe Cuun sama loxol ndijoor kii ci topp mooy Sadda Ñang kii taxaw nii ci sunu wetul ndijoor mooy El Hadj Jaaja Mbay kii di El Hadj Modou Mbay Touba kii di El Hadj Seex Mbay des na ñeneen ñu mel ni ñoom Maxtaar Mbuub Seex Mbay Seex Juuf góor a Njaay ndaanaan mi ngeen xam ni saa bu ñu dee fi weer wi gis ngeen ni bokk na ci ñii ñëw di jël si direct yi ngir di ko mën a jàlla ak El Hadj Mbay ak El falu mbay Mbaye ñooñu ñëpp bokk nañ ci mbootaay gi nga xam ne ñoo tënkoo fexe ba am aw kayit ngir bëgg a tege ci njàngalem dëkk bi bañ koo génn benn yoon ñooy profitoo nag ni bis ni ki tey fas yéene nañ sol sunu dal fépp fu nu amatib cérémonie ak li ñuy génn ci sunu poos ñu koy dajale di ko def ci kenn kee saa demee ba koor gi jubati ñu dikk jébbal ko daayira daayira Muxaddamatul Xidma ñu defal ñu ko ci liggéey bu tedd bii loolu moom laxasaayu nan di leen ko wax ci kàddu président Modou mbay Ndiaye ndax Serigne Touba leen fas yéenee liggéeyal ci lii ab liggéey gënu koo kawe yéen ñi ñëpp Serigne Touba defar na seen maam ba noppi ci moom ku ci bëggoon a defar ak yàqu sax dootoo yàqu ndax Serigne Touba daa pare ci sa dereti maam kon bu ngeen laxasaayoo asamaaka ñun ñii nga nag nga xam ne nii sëriñ bi daa woote ñu wuy si woote bi di dëgg ñu yaakaar ci tey yaakaar ci ëllëg ci li nu gis tey lu muy neex neex ëllëg a koy dàq kon loolu fas yéene nonoo laxasaayu ànd ak seen euh, yéen maa ngi jéglu nag nag kàddu yi dama doon ubbal président rek waaye euh, amoon nañ yéene ju rëy ak xol bu sedd wax lu gën a taaru lii ak lu ko gën a rafet waaye nag ñu ngi jégalu baax sëñ Abdoulaye sunu xol sedd na baax a baax a baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu